askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun moom lañu ñu fanaane lu def foofu nag lu ay di jàmbat ah, bisimilah yi jàmm Vox Populi lañ koy xëy daal di doore mu dellu dekkal coowul Casamance li nga xamante ni jeneenuk fitna jot na fa daal di yeewu ñeel ay touriste espagnol ay doomi Espagne yu nga xamante ni nag ñoo fa daal di demoon noonee fitna ja daal di dal seen kaw ñu daal leen ni teg fitna ba pare nag ma ne ko xoqatal leen ñu ca nag daal leen ni yàkkataan yéene kaay bi xëy daal di koy fësal ci xëtam mu njëkk ni attaque boobu mi ngi am ni ki démb ci digg bëccëg gi yéene bi dellu di xam ne ni daal ma ko ca bu ñu naan Karang noo noonu jàpp ko yéen kaay bi di ñu xamal ni ñu jege loolu jululu noonee nag mën ko l'évidence yéen kaay ñu xamal ni ñu touriste yooyu sax de lu tolloog ñaari millions donte nag Vox Populi ma nga naan nag ñetti millions la daal di fàqat ci ñoom libération yéen kaay bi dellu na di xam le ni daal ak ma ne ko kii di emploi Bodian bi indi na de ay xibaar yu nga xamante ni na loolu ci ñoom waaye nag yéen bi ba tey baawul la nga xam xamante ni xew la te wetu jululu yéen kaay bi ñëw ci espagnol doomi Espagne yooyu nag yàq taan le nag mbirum MFDC googu noonu mi ngi koy gën di dëggal te koy gën di wóoral ndaxte procureur bu Ziguinchor bi de ñëw na nag daal di xam le ni mel na ni mbir ba pare teg ko daal di koy matal ñoom ñooñu seeni ñooñ kenn génnuñ ci ndaxte nag am na ab liet naa bu nga xamante ni moom la ñu xamal ni ñu procureur u Ziguinchor bi kon dellu na di xam ni daal mbir ma am ca bu fa boyot de am na doon na ko doon na attaque bu nga xamante nii rek daal di koy am de dañ ko daal di planifier nas ko nag ba noppi nag daal di koy waajal ba nga xamante mat na ñu daal di koy teg ci yoon loole sax la di firnde bi lieutenant colonel Issa Diack bu gendarmerie yi moom nag dellu na di xam ne ni daal am nañ ci ay preuve di yu nga xamante yu leer la l' observateur ñëwaat ci mbir moomee noonu nga xamante nag de wax nañ ci de waaye nag ma ne ko la nga xamante moom la teg kii di Bourama Sané mi nga xamante nag moom lañ def ci daal di faatu yéenekaay bi xam na ni gendarme yi ñoom jàpp nañ ni daal ca seen loko yooyu nga xamante moom la bëggoon a daal di bakkan ba daal di root yéenekaay bi jàpp

nga xamante ni moo ñeel ci moom yéen kay bi jàpp ni rapport IGE bi nag mel na ni dañ ñu ko taree waaye lañ doon sàkku waaye nag yéen kay bi dellu wax ni nag naka la ñu di commandité mbir ma laata moo ñëw ci nag ka nga xamante ni moo ko commandé ba ñu daal di koy teg loxo yéene kaay bi ñëw ca loolee xam ne li nag loo ca mënti dégg daal mbir mi nag mënu ko foog yoon daal di cay am ngir nag mënu ko la ñu bëgg dëgg gi daal di daal di feeñ zoom info ànd ak ñun ñu xamal ne ñu daal ca Touba la ñu daal di yóbbu ak ko xalif bii di Serigne Mountakha dellu na di xam ne di daal fi mu toll nii la mu génne nag ak fatwa la yéene kaay bi xëy daal di koy fësal ngir indi ci ay leeral da ngeen di teg zoom info ca wet ga mu dellu di xam ne ni jamono ji ma ne ko du kenn du jëmmi kenn ku nga xamante ni ñor na ko nag ku dul nag ma ne ko ki nga xamante ni yàlla suñu borom yamul ci loolu de ngërëmuk Serigne Touba rek ma ne ko lay sàkku yéen bi dal dellu xam ne ni suñ mun taxaakoon jot na kàddu ma ne ko yu nga xamante ni jot na ko daal di xamle record yéen kay bi ñëw di xamle ni daal marché bi nga xamante ni moo di marché européen wu transfert yi onze ni ko Lyon au cœur du mercato yéen bi xëy na daal di fësal lool ñëw ci nag ne ko fi ma toll nii à Dakar le 21 mai ak Kalouga début juin mondial 2018 bi planning suñu Lions yi moo tëdde noonu ñu jóge fa dellu siwaat Vox Populi ngir ndar képp yéen kaay bi dellu de xam le ni daal moom de ma ne ko ah moom la nga xamante ni moom la daal di mbuboo woon du leen lu dul ma ne ko ne ab douanier la juróom-ñaari at nag jot na ko daal di am ba keroog ma ne ko mu doon jéem a wutub ñaareel ndax aw ba ca la ko ndax ca la mbir ma nag daal di feeñee mbeng mi yéen ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari bu ko kenn ñëpp na ko ñëpp comp as loof ci yéen kaay jaa ngeen jëf